maa ngi sant yàlla bu baax di julli seen sallallahu alayhi wa di ñaanal sëriñ mun taxa xalif sanaatam bu mu yàgg fa loolu te wér ak mbooloo njaboot sëriñ Tuubaa gi samay tànk nag tànk taalibe la tànk doom la ndax damay produit boo xamante ni dama jóge ci école bi mooy alasaar bu sëriñ bi ma xam taxawaayu sëriñ Murtala ci lislaam di ko ñaan yàlla yokk ay leeram liggéey bi sëriñ Mamor yor ko mu teg ko ci loxol suñu waajur sëriñ Saaliw ak ñi mu àndal kon bu fekkente ni àddina toll na fii ñun dañuy mën lu dul ñëwaat fi nga xam fi lañ jàngi woon wanewaat suñu jàppale ak suñu taxawaay ci école bi ndax produit école bi lañu mais li ko waral lépp nag moo di taalibe ndax ku ne xam na ni éducation arabe lu am solo la te fi sëriñ bi yóbbu muy sëriñ Mamour xam nañu ko muy ci biir réew ak bitim réew kon bu fekkente nekk nañ ay doom ak ay taalibe nekkat député askan wi fal ñu bu ubbee école yi te mbas mi nekk fi war nañu ñëw pour maanaam jàppale leen ba nga xam ne daan mën a xeex mbas moom noonu muy jëm si ay sel ak ay russewel ak ay mataar ak masque yi nga xam moom lañu ñu war a takk ak benn somme toll si téeméeri junni boo xamante ni pour que jàppale ko école bi ci mbirum transport loolu lépp nag li ko wund mooy comme li ma wax rek moo ko wund du xam ne ñi fi jaaru ñëpp war nañu def comme ñun ndax école bi wax dëgg yàlla euh, malgré que sëriñ bi laaju dara waaye nag bu fekkente ni da ngaa nekk doomu école bi nekk doomu dëkk bi nga jaar si école bi tey ba yàlla may la lim la may ci xam-xam may lim la may ci yàlla surtout la ci mbirum état bi nga am doole ci lenn li muy nga nekk député te taxaw ñëpp di la déglu nga toogal askan wi Serigne Touba ci assemblée yàlla may la tuut war ngaa dugal sa loxo ci école bi loolu rek mooy tànk yi di ñaana sëriñ Saliou mi nga xamante ni suñu waajur la xam nañu ko bu baax mu dool ñoo ñaanal yàlla def jàmm jële fa mbas mi ndax ku ne xam na ni mbas mi fi mu toll ñaan rek moo ko mën fi waaw loolu yàgg nañ ko def xam nga ñetti fan yi jàll amutoon ay cas communautaire tey koo ko déggaat te mu ngi wàññiku mais li am solo rek mooy euh, li nga xam mooy kër docteur li ñu wax nañu si tënku tey tamit di ñaan mu jóge fi te am nañu yaakaar ni dana fi jóge ndax li sëriñ bi wax mbas mi jaamu yàlla la comme ni nekk jaamu yàlla mm. yàlla moo ko fi indi yàlla mu ko fi indi nag moom rek moo ko fi mën a jële kon mbas mi bu mu yàq suñu diine bu mu yàq suñu taalibe en tout cas nañu faggu te fagaru tey tamit topp ndigalu sëriñ bi ci li nga xamante moom lañ war a def ñu def ko